marhaban manifesté bu coalition Yewwi Askan Wi namm amal ci àllarba gi moom la mboolem yéenekaay yi xëyee ni ki tey jilee l'observateur nañu ni ki démb préfet bu ndakaaru daal dinay gàntal bi le manifesté bu Yewwi Askan Wi namm amal ci place de la nation préfet bi nag ci li mu sukkandiku ngir gantal mbir bu ni mel moo ti njortu jamone ko ci ab lëmbe ci ay taax di ay édifice public njortu itam ci infiltration di maanaam ay sambaabo yu nar dugg ci manifesté bu ni mel ngir def seen ay ñaawteef ak itam menace jëmale ko ci trouble ordre public bi ya yéenekaay Le Quotidien Askan Wi wi fàttali nañoo deltu ci ginnaaw ci seen bile manifeste mi ñu jàppoon ni ki tey jilee ci alarba gi yéene kaayu laas nañu préfet ci réew mi daal dinañuy gàntal bépp bataaxal bi ñu jotoon jëmale ko ci autorisé ay manifester loole nag suñu naatangu daal koy xayma ci lu toll ci juróomi ñeent ci ay département li wax ni foofee yëpp préfet yi jëli dogal ngir lànkal opposition bi seen i manifeste bu ñu na mun a amal ni ki tey jilee ci alarba gi waral am fii ci Ndakaaru Kaolack Bambey Kolda Mbour Thiès Ziguinchor ak ci yeneen ville préfet ya fa nekk ñoom ñëpp daat nañu àndandoo interdire yi les manifesté ya ci joojule jamono Walfadjri Quotidien ma nga xam le nii waa yeewi léttonguñu askan wi firénguñu leen ndaxte jamono ji nag lépp daal di flou ci seen doxalin waaye du teene suñu naatango yi daat nañu njortu ne dinañu tegandi ci suufa seen bile rassemblement ay jaamaarloo moom bu ñu moytut du ñàkk ci réew mi niki tey jilee li ko waral bu ñu sukkandikoo ci moo di ñu daal tere ay ñoom daal nañuy xamle ni même i naqara tribune yéen kaay a ndaxte suñu naatango tribune ñu ngi xamle ni jamono ji tembe ñi di waa Yewwi Askan Wi ngir deltu ci ginnaaw te bu amee njiitu réew mi deltu ci ginnaaw ngir jàmm mën a ñoo ci biir réew mi ya critique yéen kaay nañu luy xeeñ daal moo di yii la élection législative bu ñu moytu tëg des koy ndaxte am na ci ay médiation yu bëri yuñ ci door ci jojjële jamono yéen kaay la Soleil moom li ko soxal moo di ni ñuy accueillir waay wopp yi ci bërëbu fajukaay yi ak urgence sanitaire yi suñu naatango yi nañu Sénégalais yi ay jafe-jafe yu tar la ñu jànkonteel ci wàllu woowee ndaxte téeméeri bërëbu fajukaay yoo jël di maanaam opito yi juróom ñeent fu ak benn yi duñu tënku ci li charte yi wax jëmale ko ci nu ñu war a dalalee wopp yi bu dee ci centre de santé publique yi daanaka téeméer yoo jël jël juróom benn fukk ak benn yi itam duñu tekk mbir bu ni mela bu ñu sukkandikoo ci yéeni kaay la soleil mi taataan ay kaddu yuy bàyyeekoo ci directrice générale des établissements de santé ci ministère bu ñuy dënk wàllu wér-gu-yaram gi jaa ngeen jëf